jërëjëf mbokk internet yi safoo di seetaan site bi di wasaare société ginnaaw ba ñu leen nuyoo ngeen taaxir lu ñu jukkil leen li fi jotaru sandi ci ay xibaar muy naqar ak tiis bi nga xamante ne ni askanu Sénégal moom la ñuy fanaanoo ni ki démb waaye daal di koy yeewoo ni ki euh, tey jile muy accident bu metti bi nga xamante ne ni moo daal di am fële ca Koungheul accident boobu nag gannaaw démb bi ay 17h euh, jotee jàpp 18h rek lay daal di am bis bi nag mu ngi jóge woon file ci Ndakaaru doon dem fële ca Kédougou dugg laata loolu nag ci la accident bi daal di am uh, ci yoon bi uh, gannaaw bi accident bi amee nag ci tàng-tàng bi nga xamante ni accident bi daal dinay am am na neuf personnes yoo xamante ni ñàkkoon nañu seen bakkan ak cinquante personnes yoo xamante ni daal dinañu ci am ay gaañu gaañu waaye laata loolu information bi nga xam ne moom la ñu daal di mujjee jot niki tey jile ci accident boobule uh, bis bi nga xam ne mu ngi jóge woon file ci ndakaaru doon dem fale ca Kédougou mu bis bi rek daal di defoon ci ay nit gannaaw bi accident bi amee nag tey ci suba bi ñu yeewoo information bi nga xam ne moom moo ci mujjee ruusandi 14 personnes yoo xamante ni daal di nañu ci ñàkk seen bakkan ak 41 personnes yoo xamante ni am nañu si ay gaañu gaañu 11 personnes yi tamit am si ay gaañu gaañu yu méttee métti ba jamono yi ñu ngi ci hôpital ñu leen di saytu seen wérgu yaram waaye bi accident boobu amee ki nga xamante ne nii mooy ministre bi nga xam ne mooy yor wàllum dem beek dikk bi bi di El Malick Ndiaye moom daal dina fay def doxantu ni euh, niki démb ci guddi ba jot fa sax yëkkati ay kàddu euh, daal di masawu ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ci am ay gaañu gaañu waaye tamit jaale ay mbokk ñi nga xam ne ñoom ñoo ci ñàkk seen doom ci accident boobule euh, gannaaw loolu nag jot na fa sax wax ka ne bu li lépp jàllee ñoom dinañu ci jël ay matukaay ci li nga xam ne moo di wàllum dem beek dikk bi ki nga xam ne moo di El Malick Ndiaye nekk ministre bi nga xam ne moom lañu ñu jagleel wàllum dem di dikk gi dikk bi moom moo fiy jota yëkkati kàddu yooyu le gannaaw accident boobu nag ñu ñuy ñaanal ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ci daal di bàyyeekoo yàlla yërëm leen xare leen aljanna si fa ñu jëm gënal leen fi nga xamante ne nii fi la ñu jugee waaye ñi nga xam ne ñoo ci am ay gaañu gaañu ba jamono yi ñuy àddu ngeen di teewlu ñoom tamit ñu nekk fële ci lalu hôpital yi ñu leen di ñaanal rek yal na yàlla fëgg seeni ay bopp ba ñu mën a delluwaat ci seeni ay njaboot mën a delluwaat ci seeni ay yitte xam ne moo di information boobu lee li fi jotaru a ruusandi ñu jukkil leen ko jërë ngeen jëf ci topp bi ngeen ñuy topp ak taamu bi ngeen ñuy taamu.